Une autre actualité, justice autour euh, de <laughs> Ousmane Sonko. Euh, El Ahmed Aidara, est-ce que ni ñuy tëralee mbir yi c'est une manière de ralentir Ousmane Sonko. xam nga dama mës a wax Malick Gakou ne ko lu jëm ci wàllum cour suprême rek mu tontu ma ne ma def la forme quoi xam nga li hmm. dem ci Ousmane Sonko te yeneen i dossiers. nekk fa depuis Matousalem loolu mënul ne dinañ ko jéem a rafetal ba ne ko président bañ yegg ca. ñoom ñoo koy faral di wax sax les politiciens. Hmm. naan ay le temps de la politique n'est pas le temps de la justice n'est pas le temps de xaw ma weesu. képp ku ñu bëgg defal mode de fast track. Hmm. ñaata sénégalais ñoo nekk ci kaso bi. di xaar di xaar mosuñ leen a àtte. am na ñu am ci kaso bi lu toll juróomi at. Ah, te ba kay tey kenn jugé bu leen. te ba léegi kenn jugé bu leen parce que peut être amuñu. am na ñu xaar seen délibéré avocat hmm. waaye nag bu ñu nekk mais def nañ ko bi Khalifa Sall. moo du fas trac ne kii il faut ñu vider dossier parce que boo ko vidé mon mën na nekk ci kaso bi nekk président de la République mhm. très bien euh, Simon Pierre Faye euh, est-ce que on peut s'attendre justement à, à une bonne nouvelle pour Ousmane Sonko le 12 décembre ah bon on ne va pas insulter l'avenir nañu nañu toog xaar mhm. décision de justice lay doon euh, on verra ce que le tribunal de Dakar va décider. Mm -hmm. mais liñ ciy mën a constater rek mooy l'audience spéciale est fixée pour le 12. Mm alors que le parrainage officiellement prend fin le 10 le 11 ñu commencé procédure de de dépôt des candidatures. Mm donc bu boobaa lan lay doon si la décision est favorable à Ousmane Sonko à quoi faudrait-il s'attendre si la décision lui est défavorable ce sera toujours dans la logique peut-être de le mettre de côté. te loolu la ñu gis depuis le début. Mhm. donc on verra le 12 naka lay demee mais déjà euh, tu di dis que c'est déjà hors de course c'est déjà peine perdue. en tout cas merci beaucoup pour les commentaires il est 7 heures passé de 44 minutes Mame Mbaye Ndiaye joxaat naa la léegi. ma jëlaat léegi ngay nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk ci gargot yi. yow lay rey sama mbokk mool yi waaw jërëjëf <laughs> sama mbokk mool yi. pourquoi pourquoi toujours gargot. ah waaw parce que. dama tàmm daan dugg ci gargot bi ñu nekkee am na ko daal jaay foofu ci kii. waaw wetu El moom fa njëkk a yóbbu. ah El Hadj lekkaloo ma fa loo xam ne nii. man man nag xam nga lan mooy sama problème sama problème mooy Mayga. mooy Mayga de ah. ñun on a une association nationale des des des. de Mayga. Ah. oh laa bokk de. yaa ngi lekk yaa ngi lekk lu temps yooyu la xàmme nga kii <laughs> waa ji sol gañ. Gagnila cub Gagnila bi. moom Mbaye Ndiaye elle moom Mbaye Ndiaye. yor na say archives. non du temps de Jokko FM la woon. <laughs> Jokko FM côté boo xam ne kenn xamul lu may <laughs> xaw ma sa takk lunette. en tout baax ña xam ne ñoo ma jàngal élémentaire ah. <laughs> madame Assi Mbaye madame Dior madame Nayer. national des lekkers de Mayga. waaw lekkers nii de. waaw lu tax pataawoo leen tamit nag si moom. Mayga moom boo may lekk. Mayga day fekk fii Mayga day fekk c'est pas forcément pata wala mayga mayga problème bu la. waaw man korox caaya bi man xam naa fa laa bokk. mayga korox caaya bi dañ koo délogé fii. waaw nga góob nga naan waaw mayga gis nga góob mayga. Ah, doo ko retrouver sa kër doo ko retrouver restaurant. mu ngi mel foofu rek nga koy mën aywa mu ngi mel ni yàpp tabaski lakk tabaski mu niróo lakk lakk lakk yenn saa yi yenn saa yi suñu reer wala añu fee laa koy tegee jënd dem may ga dem ca may ga buubu dafa neex nag yéen a ngi def lu neex dëgg may ga amul dem may ga yéen a ngi te loo am dugg may ga nag loo am dugg may ga moom xibil yéen a kaay ne amul sax ñu lebal la te ñoo dàq pomme sautée pomme sautée yàlla bu ñuy jëndal café man kekk kekk kekk kekk kekk ak pool bi. kenn du ko kenn du ko raxas. kenn du ko raxas loolu looloo càq nañu. nuyu ma Cheikh Sarr moom mooy suñu président association. Cheikh Sarr benn animateur na Simon Pierre Faye. waaw euh, nee na. Euh. Euh, forox caaya ah. Simon Faye. ok moo ko damaa jottali. donc donc tekkil tekkil jabar soo ngay lekk na am nga droit sax ñetti waaw ubbi sa biir biir bi xool lu muy sax. ubbi da ngay topp si ñetti yooyu laay ñetti booli frontière bu si nekk boo guuxee suur na. goutte moom dinañu sonal man ak yow. goutte. teetoo nag sama yëpp. goutte sonal de. ñun bëgg kat ndawal yi. yàlla baax na waaye yëpp leen ci kaw si dund. tribune yéene kaay nee na liñ fi doon dund démb lii ndekete nag. et lii lu sérieux la de. caaxaan faa noo wut sàccee nag biis faw mu am démb laa leen wax réew mi on raisonne en terme de milliards ay milliards la ñuy waxtaanee. suñu franc monétaire. te pour nga yor xoola <laughs> junni bu dëgg sa poos sax moom kan poos yaa ngi ay këyit ci nga junni bu dëgg sa bopp problème la. ay sukkandiku a kaay bi fourniture ñu doon wax. sa ministère de la de la santé yëngal na fa de. 71 hmm. milliards laa la wax. Hmm. enveloppe en état de grossesse très avancée. milliards boo neexee sax nga def césarienne te lii dana ko césarienne. ndeysaan xaar ñu togg ko ba mu ñor. Mhm. may ñu ko fu mu wasine ndax nag en mode fast track lañ ko def marché bi nee nañu si benn fan. lanu ko validé si benn fan. yéen kaay bi ne est-ce que du deal def ko entre guillemets est-ce que du deal def ko en rouge parce que loo xam ne da war def appel d'offre. Mm. fournisseurs yi taxaw. ku si mm. nekk def sa proposition. ñu xool bi nga xam ne moo leen gën a arrangé ñu jox ko marché bi. nee ñu benn fan laa la wax de. Mm. fast track. ñu daal di gérer marché boo xam ne soixante onze milliards la. Hmm? maa en tout confidentialité nag mi ngi nii. yéen a kaay bee waxuma de. dañ ko maire Binta Faye. dañu ko mair Binta Faye ci suuf ba mu jëm kaw. ñu jébal ko waa Afrique conception distribution ACD. ak waa mbàjjam ci réew mi. lii la lii lii lañ ko doxalee. ñun kañ lañ sa ministère de la santé. contrat bi bokkoon na ca construction benn hôpital bu yes sa Bakel. benn centre diagnostic ak d'imagerie médicale sa Fatick. antu na. ah antu noom antu lu mu ci manti doon de gré à gré wax. Hmm? léegi nag ministre bi wax na. Hmm. lu mu wax. ministre bi tontu na. Marie Khemesse Ngom Ndiaye. Marie Khemesse Ngom a ngi nii tontu na nee neen bu leen gaaw <laughs> li ngeen di wax nii demeewul noonu de. dëgg la wax na dëgg. wax ja dégloo la laaj. Hmm, ndax nag moom pour justifier wax ji nee na. lii yëpp bi ñu ko doxalee nii def ko fast track daf fekk ko ni ay émeute yu amoon mars 2021 sa la bokk ak émeute yu juin 2023 man na xam lu mu laale diggante marché beex émeute yi mu tudd nii waaw lu mu ci laale xam lu mu laale mais en tout cas nee lii daal bokk na ci lii tax ñu doxalee ni ñu doxalee nii libération nekk nag sa wax ji na ko fa dëgg neex a ajul ngooñ de <laughs> ah. sa wax ji teey na xel de en tout cas fournisseurs yi sociétés yi nga xam ne ñoo nekk fii taxaw nee nañ marché gré à gré bu 71 milliards yu tegal as lëf sa ministère de la santé lii faw ñu lijjanti ko nee nañ xeex bi abalewuñu ko leblewuñu ko mayewuñu ko mbajum kanam la ñoo koy fajal seen bopp juróom-ñeenti société yu nga xam ne takk nañu taxaw nee na dañuy supprimer dañuy annuler lii nga xam ne mooy mooy contrat gré à gré boobee danu koy annuler hmm? en loolu la ñu bëgg du duñu ko nangu mais est-ce que ça a ah, moom mi di justifié kay kon si am lañ ko defee. mais ah. non ci li ñu yaakaar a andi leeral. moom moo war a andi leeral mais est-ce la andi. xam nga li gënoon simple bu fekkoon du du du moom daan ah wax fa dëgg neex yàlla yoon nekk mais itam loolu ko ci. parce que ah, mooy ministre fu mu nekk nii moom moo war a rendre compte moom lii la andi ni ay leeral. xibaar yi ne kaay ne coow loolee dañ koy stand by en attendant. parce que lu ñu lijjanti loolu mooy. Hmm. ñii ñaan yàlla moo waa këram mu gaaw dem. <laughs> loolu dëgg de. bu <laughs> ko demoo. non non mais. Ameth mu ngi koy buux rek mu jël buntu. non non koy buux rek buntu bi jot na. waxuma moom waaw waaw moom moom bokkul njabootam waa këram. waaw waaw nañ dem. parce que aux affaires. Macky Sall bi mu fi toogee fukki at ak ñaar. <laughs> mosoo leen a gis kenn ku bokk ci moom koo xam ni. les corps de contrôle de l' état dañ leen épinglé. ngëti wax naa la fii ma ne la même du temps de Ablaye Wade mooy ay idée ay Condé Tognar ay ñoom Ndeye Khady Gueye ay ñoom Modibo ñoo ñëpp politique la du politique en tout cas daal ci njabootu Ablaye Wade lañ nekkoon euh, euh, euh, entendre nañ leen gendarmerie àtte leen léegi léegi léegi mais wax ma kenn ku bokk si Ablaye Wade kii ci Macky Sall rek koo xam ne et puis yow opposant waxu presse waxu influenceur waxu kenn chroniqueur waxu kenn corps contrôle état ci boppam ci santé ngeen nekk. waaw reculer leen Covid corps contrôle état moom moo toog ne lii ak lii ak lii ak lii moo ci am ci sàcc. am nañu si oo déglu leen. oui notre argent. fu mu am nañu si oo déglu de ba fii nag. ñoo ngi toog di xaar bi ñu sàccee ñu ngi koy xaar tribune yéene kaay ne eh, coow loolu dañu koy stand by en attendant donc cent onze milliards dañu koy stand by daal di wax ci campagne commercialisation jënd meex jaayum gerte gi 2023 producteurs yi de nee nañu nag wax fa dëgg neex yàlla mënuñoo jël mbir yu yu ëpp 280 dafay metti ci ñoom dafay metti ci ñoom njaayum gerte gi daanaka coow am na ca yéene kaay bi daal di siy dikk deux minutes pour l'essentiel sampaw laaj nee na est-ce que anamu baa mi ngi ci est-ce que duñu gelé li nga xam ne moom mooy euh, mbirum gerte geex ñoom euh, exportation bi mooy li Yacine doon wax sànq. mooy li mu doon wax sànq jëm ci njaayum euh, gerte gi kon nag daa mel ni boobu ñëwul fii de ah nekku ci. très bien ah mi ngi ci si mais nee na ma mi ngi ci kay mi ngi nii dafa samp laaj. faut-il geler les exportations campagne arachidière bi ndax nag. Mhm. fi wax fa dëgg na yàlla da ngay xool digg bi la gën a arrangé rek. foo faut réguler le marché quand même. faut réguler réguler boobu nag moom mooy coow li Moustapha Ba ñëw na ci direct news daan na koy wax njëg nee na ak dalloo nanu àndax dal rek 280 la 280 la daanaka lu lu yées jamono joojee lakk gu métti moo am ci biir yéenekaay mu ngi koy wax de démb ñu jël ko am ci rek Abdourahmane Diallo mhm. ci euh, yéenekaay bi nee na benn ay magasin yu nga xam ne ni dem nañu marché ba 4000 mètres carrés si la toll daanaka lépp lu nekkoon ca biir def na doom ay jafe-jafe la ñu doon jànkoonteel te fay li nga xam ne moom mooy lakk gi Mm. incendie au marché Saint-Maur de Ziguinchor. yéen kaay bi daan na dikk. ñu bëri lakk googu seen TV lañ ko déggee. ok c'est vrai on a eu l'exclusivité oui. Mm-hmm. Vox Populi ñëw ci pros. Ousmane jàpp nañu date de. le décembre. le décembre mardi lay tombé. talaatay talaatay Sonko. dafa am talaatay ndeer mm-hmm. le 12. mu fës kee ne nag ñu xam ñoom ay ay avocat am fës kee ne dem ci ab audience spéciale boo xam ne palais de justice bu Lat Joor doon jëm ci la nga xam ne dañu dindi woon turam te juge Sabassy Faye waxoon ñu dugalaat ko ñu kase décision boobee euh, cour suprême rabat d'arrêt bi ñu dugal ko antewul. ci yàlla. sonal nañ yéen kaay bi nee jàpp nañu dat de. sonal nañ ko. jàpp nañu dat. ki sonn na. le 12 en attendant ñu xool. nu wànnante di mu jeexi gëtam mm. yéenekaay bi daal di siy dikk jamono joojee na réew mi quotidien nee na ko euh, wax fa dëgg contentieux la radiation sur liste électorale yi Sonko joue sa den euh, sa der maanaam dernier combat peut-être mm. jëm ci le 12 décembre ko nga xam ne moom la ñu dëgmal ngir nag nga mën a bokk ci foofu sa nekk ci liste bi te loolee antoogul en tout cas ay avocat am ca xeex ba ba léegi ngir xam ndax dana jàll am déet waaye nag jamono joojee nee nañ ko ñaari xeex la de parce que dugalaat turam ci liste bi waaye am na beneen bu takku taxawaat. mooy ban. financement des partis politiques. ñu tudd si Ousmane Sonko. ma ne benn député wax ko. ma ne Cheikh Yérim Seck taskatu xibaar wax ko. Mm. financement bi nee nañu ay lobby yi nekk ca Qatar ñoo yónnee xaalis bi ay milliards laa lay tegal lu samay kàddu de. fuñ ko teg. fuñ ko teg Matar tontu na la. nee la Matar Diop député bi nga xam ne moo génn coow li taxaw assemblée nationale. Mm. nee na j'assume j'assume et j'ai les preuves de ce que j'avance nee li may wax nii koo ko weddi rek ma teg ko ci mbedd mi. su hmm? man naa li may wax nii dama am ay preuves. na teg ci mbedd mi. l'observateur ne. waaw lu lu procureur di xaar. Ah! lu muy xaar pour s'autosaisir lu mën a nekk la bu ko neexee waaye jamono jooju am na ku leen tontu. ku leen tontu. El Malick Ndiaye sama doom baay. bés bi le jour. bés bi le jour mi ngi si kanam tuuti mi ngi noonu ci kanam. nii ah, ci wetu Oja. xam nga loolu ay wax day jeex li ñu naan ay wax day jeex. des fins. <laughs> financement présumé de Sonko par des lobbies du pétrole. ñii. <laughs> ñii dañoo teg si deru doomu jaabu teg. société civile bi nee nañu nañu bépp l'enquête nag. ci yàlla. waaye nag nañ ci ànd ak prudence ak tey. waaw. nañ ci ubbi ab enquête société civile wax nañ ko. parce que nag financement parti politique yi ñëpp dañuy wax ne koppar bi dafa war a leew dafa war a set nee nañ bii ay lobby moo nekk ci ginnaaw du samay kàddu bés bi le jour moo wax El Malick Ndiaye na xanaa ay wax day jeex. ah. nee na Ousmane Sonko na nekk rebelle. waaw. na nekk salafiste. ah. na nekk sàcc. waaw. na nekk baanekat maanaam violeur. waaw. bëgg nañ. nu mu mel baax na. ku am leneen na jël. waaw. te bàyyi ñoo suñu pros. dëgg la moom. El Malick Ndiaye mooy wax de nee na lépp loo leen ko mën a tam lépp loo leen mën a teg si dara li ngeen wax ak li ngeen waxagul ak li ngeen waaj a wax yépp bëgg nañ ko am na leen jëlal te bàyyi ñox suñu Ousmane Sonko El Malick Ndiaye mooy ni xam ne yéen kaay bi dikk na